Sénégal. RFM matin 7 h sunu gan Bara Ndiaye salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. ñu ngi lay dalal euh, jàmm Bara Ndiaye bu APR foog na ndax faaw nu la fu nga féete ci wàllu politique ndax euh, ci li nga jiite woon sax euh, maison de la presse nekk directeur général ba Macky tabboon la ca bi élection yi jibsee da nga ni doo jàppale Amadou Ba Jomaay ngay jàppale des na ci dellusi ci kanam tuuti. nekkoon nga itam meeru Meewaan ca région bu Thiès département Tivaouane maak Georges Déthié Diop euh, fas yéene sax ko ñu waxtaan tàmbalee ko rek ak euh, màggal gi mbaa màggale nga ci ci jàmm rek ba euh, dikkaat. waaw màggal gi yàlla dafa dogal mu am ci lu ma fekkoon mais xam nga ñun taalibe Cheikh Ahmad Bamba moom màggal fu ñu fekk dañ koy màggal. màggal nañ ko doon ca demuñu woon Touba. Mhm. xam naa incha allah balaa fekki fan rek ñu dem ziare ji. jëm ziar ji màggal gi nag euh, coow juddu na ci ndax leetar bu bawoo ci euh, présidence de la république waa ji naan Omar Diagne te euh, nekk fa directeur des moyens généraux jotoonuk leetar bu bawoo Touba Seexuna Mbàkke mi ñu dénk wàllu jëflante ak bitim réew ci màggal gi jébbaloon ko ko ngir présidence na ma ko doon defee 2009 ba léegi mën a dalal ay gan yu bawoo bitim réew te xalif bi invité leen ñu war a ñëw fekkee màggal gi mu war a leen daal ci hôtel. mu lànk ka ndaare coow li nag bëri na ci ne euh, euh, comité d'organisation bi commission bi sëñ Bass Abdou Khadre jiite ñoo war a bind ak binduñu lu mënti am waa ji tontu na tontu na Touba faf sax ba muy tontu dañuy Cheikhouna Mbacké président commission d'organisation tontu na ko ci tontu ñàkk euh, teggin di loo xam ni bettul ñu bëri ndax moom Omar Diagne moomu ku ne gis na kàddu yu safaanoo yi muy yëkkati teg ci kaw tarix murit contre leen te na te nëbbatuwul est-ce que lettre boobu du mandargaal rek yëg-yëgam ak euh, gëm gi mu gëm ni euh, euh, moom yoonu murit du ay mbiram. bon man cette polémique comme ni nga ko waxee gis naa ko rek ci ci réseaux sociaux yi d'ailleurs ci laa ko lire et j'ai vu effectivement un courrier qui qui lui est Euh, gis naa aussi euh, dégg naa aussi la déclaration du porte-parole du khalife général des Mourides qui est par ailleurs le président de la commission d'organisation donc euh, li ñu mën a jàpp man li may jàpp mooy ki nga xam ni moom moo yor kàddu Touba jiite comité d'organisation bi li mu wax yaakaar naa leer na ñëpp dégg nañ ko xam le nañ ni kenn lettre bi jógewul ci moom mais également jàpp na ni loolu nekkul une requête et jàpp na ni bu nekkoon requête sax présidence de la république dinañ dinañ ko satisfaire mais bon euh, on a vu euh, euh après la déclaration de Serigne Cheikhouna euh, Bara déglu nañ ko euh, mu nii en tant que président de la commission des relations extérieures donc loolu ci la ci la ci la ko defee depuis 2009 bon c'est que ku ci nekk mën na ci am ses mais man li porte parole bi wax je crois que ci loolu lay tënku moom lay jàpp même si bon je pense que euh, war nañu en tant qu'acteur politique en tant que décideur reconsidérer quand même suñu ay ay ay ay suñu suñu suñu suñu ay position par rapport ak confrérie gis na Sénégal yàlla moo ko euh, bind euh, defal ñu xéewal ay confrérie tarixa yi nekk fii nekkin bu rafet liggéey ci réew mi liggéey bu mucc ayib def fi loo xam ni wax dëgg fa yàlla képp koo xam ni da ngay naw Sénégal bokk na ci li nga ko kon yaakaar naa yi gën leen accompagner ormal leen du ci yàq dara au contraire dafay dafay gën a defar et je crois que bu fekkente ni dafa am un impair euh, de cette nature bon euh, je je ne maîtrise pas l'alpha et l'oméga de la question mais liberté war mooy képp koo xam si da nga jóg peut-être pour remettre en cause aussi les confréries man personnellement mënoo am sama sama soutien doo am sama accompagnement parce que nit li ko yàlla suturaale da koy xam ba pare fonk. Hmm. ak ni nga yàggee ci état ci jamono yu mag yi euh, lettre bi ci boppam euh, faute yi ci am ak euh, njuumte yi ci am lettre bu boobu présidence la République ndax dem na ba naan Cheikhouna Mbacké président commission d'organisation tëdd loola noo gisee lettre bi nga xam ni ñun jokkoon nañ ceeg moom mu dëggal ni lettre bu authentique la pour ñi nga xam dañ ci am xel yaar. ah kan kan moo ko dëggal. Euh, moom ci boppam ki sant Diagne. moom Cheikh Omar bon kon kon kon nañ jàpp ni ci moom la jógee et puis bon euh, j'ai vu effectivement les les commentaires qui ont été faits sur. Euh, Bara yaa ngi daw débat bi non man du daw débat. ah si si soree di nga xam ne man du daw. it man lu ah. may daw man wax dëgg fa yàlla Bara laa tudd sant Ndiaye <laughs> donc amul lu may ragal mais je pense que. Euh, euh, bon, d'accord, Nati, hein, euh, quand, a un certain niveau de responsabilité, quand même, il faut un minimum d'exigence. et quand même de de de de ça, ça, il y va de la respectabilité et de la crédibilité des institutions yi nga xam ni ñoom la ñuy diriger. Mhm. une lettre qui émane de la présidence de la République je crois que euh, aussi bien dans euh, son fond que dans sa forme dafa dafa war a mandargaal quand même euh, kër gi nga xam ne ci la juddoo. Euh, ci la ci la hmm. crois que loolu loolu d' accord naa ci. Hmm. un peu plus peut du ci yàq dara. Hmm. te sax moom waa ji Diagne moo ma bind lettre bi nee na am na ñeenti doctorat est-ce que 7h45 euh, Bara Ndiaye buñ la déggee ngay wax ni nag Georges xam naa dina la ko laaj léegi. Mm-hmm. sa taxawaay ci langu politique bi fii nu toll. gannaaw APR ci lañ la xamee élection yi jib nga ni Diomaye président ngay jàppale. mais Babacar loolu euh, bettu la yow bettu la bettul Georges parce que ay yoon yoon su ma juumalee ñaari yoon euh, ci ñaari at wala ñetti at lu jiitu élection yi ñëw naa fii ñu wax ci lu mel noonu je crois que euh, ki nga xam ni moom la APR njiitu APR di président Macky Sall tabboon ko muy le premier ministre Amadou Ba. yaakaar naa daaj toog naa fi ak yéen ñu wax waxam ma fustigé woon à l'époque une démarche un comportement et une attitude bu mu amoon dans le parti et qui ne ma semblait pas conforme au, à la ligne et aux orientations du parti ma wax ci li ma ciy wax et naturellement euh, ça lui a pas plu daf cee jóg ci jóge taxaw taxawaay boo xam ni wax dëgg fa yàlla bon jàppoon naa ni bu ñu nekkee ci parti am ay contradiction war nga ko mën a gérer d'une autre manière que de dire que waa d'accord kii daf may attaquer dafay def nangam xaaral je vais lui faire son sa fête bon Euh, li ci xew peut-être bari na ci loo xam si je même pas en parler ici mais bari lu ci xew yoo xam ni euh, muy bi ñu demee aux élections municipales à Mewane yeneen ak yeneen ak yeneen des gens se sont ont cru euh, devoir se liguer pour pour me combattre et man li ma gëmoon à l'époque loolu laa waxoon et bi ñu demee ba élection yi dara desu ci lu dem élection aussi je crois que pour ñi ma doon suivre xamoon sama logique ak sama ligne il savait très bien, a commencer par le président Macky Sall, que je n'allais pas soutenir le Est ce que la conséquence euh, bu soutien bu Diomaye président c'est génn maintenant APR dem suubu ji ca mouvance présidentielle bi wala da ngay berse daara. il est évident que nekkatuma APR ça je crois que c'est c'est c'est une suite logique loolu ñëpp nañ xam hmm. nañ ko. bon euh, ber naa sama yo langue bopp ñu koy doog dëggal nag ber naa sama langue bopp bu yàgg parce que bi may bi may bi ma bi ma bi ma bi may dem ci coalition Diomaye président dama fa dem en tant que coordinateur euh, du mouvement force ouvertes pour la euh, pour la république et le travail fort donc loolu laa fa demee et je suis euh, dans la coalition Diomaye président je soutiens le président et l'action du gouvernement ça c'est c'est très clair. mais mais Bara donc loolu amul luñ ciy lam-laame mais anam wi nga jàppale Diomaye président beddi Amadou Ba. Euh, xaw a yomb trop quoi. mais man daa mel ni da nga da nga xeeñtu defet bi rek. ne xaaral ma non non non man man ku ma xam yow xam nga ni. man parce que da nga nee nga Macky mi ngi la doon fexeel te Macky bàyyi na la. ci bopp mi non Macky mi fexeel ah, ah, je précise. Uh-huh. quand même je ne lui dois que euh, respect et considération ak reconnaissance bu mat sëkk. je n'ai aucun problème avec le président Macky Sall mais lui-même comprend que je ne pouvais pas soutenir son candidat. te xam na ko nangul na ma ko. bon léegi liñ bëgg a xam mooy. Euh, Diomaye président googu nga dem. oui est-ce que mun nañ laa jàppee transhumant ci ñi njëkk a transhumé jëm ci Diomaye président nga. Ah, pas un transhumant transhumant mooy kuy wut lu lu lu jóge fu wow pour dem fu gën a tooy. fekkee hmm? dafa commencé c'est le mouvement effectué par le troupeau. mais fee dafa commencé des zones vers les zones luxuriantes. et je crois que man bi may dem et euh, il faut le rappeler, j'ai été le seul porteur d'un décret signé par Macky Sall à avoir soutenu ouvertement et le candidat Diomaye avec toutes les conséquences yi nga xam ni peut-être mënoon nañ ko ci xaar mais peu importe je crois que suñu décision de soutenir la candidature de Diomaye aussi c'est une décision que nous assumons que nous qui nous semblait juste et wax dëgg fa yàlla wax naa ko sax ci biir campagne bi man bu ñu jëlee lépp nag teg fële xool wax ci Sénégal man wax dëgg yàlla Diomaye ma gënoon a doy Amadou Ba. et ça je l'assume mais yéen ñan que yow rek lañ xam. waaw man ak bu ma nee man mooy ñi nekk sama ginnaaw parce que nag wax dëgg fa yàlla Euh, am na yàlla am na ñu ma booleel euh, ñu ànd ak man ma falu en tant que maire ñu jóge fa ñu euh, créer suñu mouvement taxaw di liggéey nekk meewaan ak fu bëri ci Sénégal di fa liggéey am fa ay représentant bu may wax ñun loolu ñooñu laay wax. muy ani cohérence ak li nga yàq ñoom Sonko yëpp ci jamono bi ngay ànd ak ma Macky muy neex. no man du ma yàq nit déjà ku ma xam-xam ni ma je ne personnalise pas un débat et du ma songu nit à titre personnel mais j'ai des positions que j'assume su ma waree amaat yeneen position non may ma ma ñëw Babacar bés lu Sonko bi fi indi coow ci coow bi kat daa nga ca wax non man du may wax ci question yi ay faits divers je te permets nga vaar ma boo ko vaaree doo ko gis parce que man dafa am na respect bu ma am ci sama bopp am na cër bu may jox sama bopp am na également niveau boo xam ne bëgguma fa wàcc dans le débat public donc man ay affaire de bés lu ak yooyu d'ailleurs euh, franchement yooyu bëgguma ci sax di di wax mais li ma doon wax euh, sur le plan politique et que j'assume totalement et entièrement et tey su ma amee une position boo xam ni peut-être nekkul en phase aussi avec. Euh, ce nan ngay opposé woog Sonko ak Diomaye des années et des années élection présidentielle jot rek nga rocceeku dem jàppale leen. waaw loolu politique la. ah loolu politique waaye waaye waaye samay position position yu républicaine lañ position yu juste lañ amul teguwul ci benn xaste wala benn euh, def naka su duna wala may wax lenn luñ may xeebe waa Pastef ci seen bopp bu ñu ma parce que man du ma xeeblu ma sama bopp xeeblu sa bopp mooy wax. wala position wala posture wala avantage taxaw tax ngay jël yenn position ay divergence politique ngeen amoon yow àndoo woon ci seeni offre comment est-ce que vous pouvez soutenir cette offre là aujourd'hui c'était pas sur l'offre que je n'étais pas d'accord sur une approche sur une certaine façon de faire aussi d'accord uma ci woon tey aussi su amee ma taxawaat assumer sama position moi je suis comme ça qu'est-ce qui a changé Georges amul lu ma ragal amul lu ma ragal amul lu ma dul assumer amul ci politique lépp loo xam si sama xel dina ma ko may sama fit di ma ko xañ loolu xaw ma ko ci politique. donc euh, dara changé wul dem nañ élection euh, man jàpp naa ni candidat bi ki fi nga xam ne fi laa bokkoon candidat bi ñu ma tegal doyu ma dem naa soutenir candidat bi moo doy et surtout. léegi yow euh, doyu la kan nga foogoon ne moom la Macky waroon tànn mu doon mu doon candidat. ce ce débat là je crois que du ci duggaat. non non non c'est important parce que il faut nga foog nga wax ñu tax candidat bi doyu la. man man Macky Sall laaju ma sama xalaat. su ma ko laajoon ma wax ko wax naa ko sax d'ailleurs te laaju ma ko après tëbuma tëb rek nag dem soutenir euh, un candidat de l'opposition euh, wax naa ko ko xamal naa ko ko wax naa ko ni ko bu bu ma sañoon dañuy bokk fu ñu féete mais choix bii nga def candidat bi ànduma ci te li may wax nii ci rajo laay toog di ko am nañu ko gis am nañu ko xam am nañu ko dé ñu ko yëg aussi donc je crois que loolu c'est c'est derrière nous actuellement li nekk sama kanam moom laay gën a mais c'était pas seulement Amadou Ba il y avait d'autres candidats yi bokkee ci mouvance présidentielle bi ay euh, Aly Ngouille Ndiaye ndem si yàlla ga Mahammed Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao euh, yow amoo ci woon kenn ki nga xamante ne moom nga favorable lool non li ma sama xel jox samay conviction jox ma ko sama xam-xam bu màcc ci politique jox ma ko c'était de soutenir le candidat Diomaye et je l'ai fait mmh. nga soutenir ko Euh, moom Diomaye jël dogal décret dindi la ci direction général maison de, la presse loolu moom on dit pas dara la wala du dara on veut juste savoir euh, loolu nu mu demee bon je sais pas président de la république quand même mooy nommé <laughs> aux emplois civils et militaires kenn képp koo xam ne si euh, jàpp na ni mën nga def liggéey bi daf lay nommé képp koo xam si jàpp na ni amaana poste bi ñu la teg am na ku la ko gën a mën mais il il le met où est le problème man euh, je l'ai pas soutenu bi may dem ci candidat Diomaye Babacar il faut que il faut il faut que ngeen xam ko rencontre bu formelle sax amul à part le fait de déplacé déplacer avec euh, mes collaborateurs dem euh, au siège de la coalition signer la charte de la coalition amul préalable amul discussion amul benn condition bu ma teg et ça aussi il faut quand même ñu xam ko moo tax post ou pas je crois que mon soutien n'était pas Euh, conditionné par des fonctions une position am na pour autant est-ce que sa poste man leen. pour autant est-ce que amul benn lecture ba nga ci war a def ça veut dire euh, sa njàppale. non non non non no je le je le vois pas comme ça. je crois que. est-ce que yow ba ngay dem wax loolu. loolu est-ce que bañ faloog léegi yaa ngi wax ak ñoom. waaw ñi ma war a waxal maa ngi wax ak ñoom mais li am solo mooy c'est c'est pas nos personnes nit ki mënoo rek sa position nga koy déterminer en fonction. de la position de pouvoir bi nga ah, nekk loolu de waxu politique la ah. nit position politique ngay topp wala wala wala wala wala wala jox nañ ma ndomba tànk mais ndomba tànk du dara Babacar doomu aadama man juddu naa ba am ñaata at nekkuma dara lékkati kese nekkul béy nekkuma maire ah. est-ce que tey le fait de ne plus la maison de la presse daf may nekk Baara ay convictions am un engagement nekk dans un cadre di ko soutenir donc je crois que li war a tax tey ma soutenir Diomaye ou non mooy la position euh, mooy mooy mooy l'orientation bi nga xam ni moom lañ jox réew mi mooy décision yi ñuy jël mooy actes yi ñuy posé mooy li nga xam ne moom la ñuy def ci bopp réew mi. loolu mooy jënd li nga def ni li nga def ni baara du gulet ci benn problème du gulet de parce que âge yi nga ne woon du noonu. oui ah euh, nga sentir ni makki mi mën naa jël réew mi ci 2011 2012 nga dem ca Macky. non bu Macky euh, jeexal nga pare dem ci ci ci Diomaye. je te rectifie man bi may jógee ànd jëf. c'était en quelle année Babacar c'était en 2009. waaw ah, ba tey rek. c'était en 2009 boobu ma kenn ci yoon wi. non non non boobu une bonne partie de And Jëf était quand même avec Ablaye Wade man à la limite mën naa ni. man li ma jamonoy xëccoo yi. Macky Sall moom a boole ak pouvoir Mamadou Diop Decroix. très bien mais vous suivi Babacar je sais li nga wax yëpp xam nga ko dara échappé wu la ci donc. man sama taxawaay du position. du pouvoir moo koy conditionné mais coup day am de. non non non c' est pas une question de. sentir coup gis nga nit aussi il faut nga nangul ko ni fu mu toll ci jamono am na lu muy xam am na ay conviction yu muy am am na ay position yu muy jël même si elles ne sont pas totalement comprises des autres aussi moom am na euh, ses raisons jël ko. bari na ñoo xam ni il me disait à l' époque li nga def sax xamoo ko toutefois Amadou Ba passe ah tu verras et bon. ñoom foofu la seen xam-xam. toll mooy Diomaye ak Sonko de gis nga ni ñu def Cheikh Dieng. beneen allié bi aw ma benn problème ak Diomaye ak. coow loolu noo gisee sax coowal. xaw ma je je ne maîtrise pas. non non non soyons sérieux quand wu ma ko maîtriser wu ko. mu waay lu ma lu ma wax ci lu ma xamul. wax ci lu ma xamul boo ma laajee ci li ma xam. mais dinaa la ci wax li ma ci xam. léegi mbiru presse bi Sonko bëgg a xooj renti xam nga ko yëg nga ko. presse bi euh, gis naa. gannaaw journaliste nga diplômé du CESTI. très bien est-ce leen sax. Euh? non Georges moom moo jiitu benn. moo la jiitu CESTI si <laughs> ginnaaw seen ginnaaw laa topp. Bandel tamit ma ngi lay ca Matam nee na yéen a bokkoon cinquième. waaw wax wax Bandel sama xarit la. waaw je le connais très bien bon Babacar li may wax ci presse bi euh, li ma gëm mooy. Euh, équité de tous les entrepreneurs devant la loi ci impôt yooyu parce que le problème qui se pose mooy ñaari mbir presse bi impôt bi ak aide à la bi ñaari débat yooyu rek laa fi dégg bi ci njëkk li ma ci xalaat yaakaar naa bind naa ko fees na li ma gëm mooy il faut un régime particulier pour soutenir le secteur de la presse parce que c'est pas le secteur le plus viable du point de vue économique maanaam ni ñuy laajee impôt ñeneen ñi waruñ ko laajee journaliste yi maanaam non pas waxuma loolu loolu ce serait quand même un peu un peu un peu un peu un mais li ma gëm mooy war nañu aménager des possibilités pour permettre à un secteur bi nga xam ni kuy uti milliard doo ñëw ci presse yéen yaa ma jiitu ci métier bi yàgg nga ci te taxul nga am ci nga am ci nga am ci sax ay millions waxuma la ak ay milliards donc passion moo la ciy dugal certes les entrepreneurs de les entreprises de presse patrons yi c'est pas des philanthropes c'est des entreprises de presse la ñu créé mais ku ne xam na ni presse bi ci suñu réew nekkul secteur boo xam ni dafay kii maintenant euh, le principe voudrait également que ñëpp fay impôt kooku kooku je suis totalement d'accord mais ci naka ak ci yan anam man li ma gëm mooy état bi war na mën a mettre en place un mécanisme boo xam ni même bu ñuy baal presse bi dafay nekk des exonérations wala des euh, remises yoo xam ni dafay jël en compte les intérêts des travailleurs tey jii ñu ni entreprise bi kat wàccoon ak sart yëpp may may nañ ko kon mën nañ ko baal impôt parce que mi ngi cotiser ay employés mi ngi leen di assurer mi ngi def lii mi ngi. def léegi ci coowal état léegi ci coowal aide de la presse gis nañ le ministre de la communication l'actuel euh, génn am kat yi nga xam ne yëkki na ko jéem a expliquer euh, waa CDEPS. weddi ko Georges l'ancien ministre. le dernier. j'ai lu son son ne itam c'est pas 40. je vais vous dire li ma xalaat ci aide à la presse bi il y a eu du très grand banditisme ci séddale bi. ça je le dis ah ci rajo laay wax te buñ ma oowee ma wax li ma ci xam. pourquoi waxoo ko woon. non defal ndànk rek dafa am loo xam si bàmmeelu biir dafa am mënoo nekk ci biir am na ci yoo xam si mënoo ko mais fa nga ko war a waxee wax naa ko fa tey maison de la presse bi ma jiite woon amul benn kuréel bu ko gën a mérito am aide à la presse tey boo demee organisation secteur yu ci bëri moo leen abrité gratuitement. da leen di abal saal organisation du secteur mais ma ñëw maa ngi ñëw projet désolé mais c'était ça le projet maa ngi ñëw maa ngi ñëw tey ba ñuy tëgg projet bi pour loolu la woon maa ngi ñëw de boo ma digloo dinaa expliquer kay boo koo jël ci acteurs yi tey maison de la presse mi ngi lay accompagner ci ni mu mëne donc tey d'accord loolu mooy liggéeyam mais bu booba bu fekkente ni lañ ko nattal dafa doyul te gis nañ ni am na fond bu fi nekk ñu ngi koy séddale quoi de plus normal ñu jël côté puisque dañuy jox soleil di jox APS di jox RTS pourquoi mënuñ jox maison la presse en guise de compensation parce que képp koo xam si da ngaa xewle tey ci secteur presse organisation bu mën a doon boo demee doo fa fay dër maintenant loolu musul am mais de on s'est rendu compte que Babacar que xam nga aide à la presse chaque année bu ñu ko musaan séddale am na benn pàcc boo xam ni dañ koy teg pour euh, gérer les recours les corrections et les éventuelles euh, omissions mais fonds boobu fan lay dugg je pose une question te ñi fi nekkoon muy les différents ministres qui se muy directeur de la communication xam nañ li may wax fan la te bu ñu ma ooyee ma leeral ko je crois que de ce point de vue yéen acteurs yi patron de presse yi nga xam ne ñoom ñoom war a gën a taxaw su supposé fonds da nga yàpp nañ ko luubal mais luubal am na fa li may wax ni xam naa ko ragaluma ko bu ñu ma wooyee ma leeral ko il y a eu du des détournements à commencer par man képp ku mu mën a doon deux mille. léegi wala lu ko jiitu. waaw dëgg que waxtu bi jeex na léegi yaa ngi la communication et nga ne luubal am na fa. te nangu woo wax ci ONAS. xam nga tamit vraiment. mais dama xam fii dama fay dama newoon ci biir politique baaxul quoi. Babacar est-ce xam nga man pendant des années avant ñuy créer la maison de la presse comme entité autonome di ko def EPIC est-ce que xam nga ni ay fonds subventions yi mu daan am. ci subvention à la presse compte boobu ci la ko daan ci la daan jaar man xam naa la fa ne Babacar xam naa lu fa xew. jërëjëf bu ñu ma woowee ma leeral ko. jërëjëf euh, Baara Ndiaye Baara bu makki woon bu jomay tey jërëjëf <laughs> euh, Georges ñu yendu ak jàmm. Vous avez besoin de caution sur les marchés publics ou privés? Adressez